bëggoon a dellusiwaat tuuti rekk ci programme bi nga xam ne 2020 lañ ko commencé woon waaye bañ koy commencé dañu ne dootuñu leble xaalis noonu léegi-léegi mu dox léegi-léegi mu nax saay kon balaa ñoo joxeeti ay financement nañu former jigéen ñi boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla madame Samb bi nga xam ne mooy directrice générale bu dem def na ci liggéey bu am solo yéen ñi toog ci salle bi yépp xam ngeen ne madame Samb nit ku baax la nit ku yaatu la nit koo xam ne daa bëgg a jàppale jigéen ñi ndax xam ne ne jigéen bi nag wax dëgg yàlla ñoo yore kër yi ba ñu dafee loolu def nañ fi ay formation njëkk nañ fi joxe benn benn promotion bu génnoon joxewaat fi beneen bi nga xam ne mbooloo mu rëy lañ dajale woon fii ci hôtel de ville def fi cérémonie bu am importance ñu financé woon fi 3500 femmes bi formation bi mujj nag génn ñu war leen jox tey seeni diplôme ak seen financement ñu wàññi ko parce que dañ ne bu ñu bëggee defati lu mel ni liñ defoon day xaw a métti ci organisation moo tax madame Samb ne léegi bi yoon dafay convoqué rek euh, présidente bi ak trésorière bi ñu ñëw ñu jox leen diplôme yi ñoom bu ñu demee ñu jox ko euh, ñi nga xam ne ñooy bénéficiaire bi ma di leen wax rek ne am ngeen fi instrument boo xam ne yéen waa Ndakaaru ndax waa Ndakaaru nag laay waxal xam ngeen léegi yoon wa xam ngeen naka la xam ngeen fu ngeen ko mën a jëlijee ñépp ci yem nag amul xàjj seen ku bëgg a liggéey boo demee fa dem fa fekk ay conseillers yoo xam ne danañ gindi won yoon wi jàppale la former la dimbale la booy génn ñu jox la sa diplôme nag jigéen jigéen dafa am jom jigéen dafa nangoo liggéey te jigéen bu lebee day fay madame Samb nee na ñi ñu fi joxoon ñépp fay nañ dese lu ñu dërëm fa dem xam nga ñooñu bu ñu dellusee see lebal leen day yomb ndax xam nañ ne bu ñu leen joxee danañ remboursé kon lii ñu leen di defal tey di ko defal jigéen ñi di ko defal xale yu góor yi nañ ci jàpp bu baax te xam ne suñu yëf la ñoo ko moom maa ngi ñaan yàlla nag lii law lii permettre leen ngeen libre parce que gis nga nit ki bu demee bay tànn il faut mu libre du ragal kenn du nëbbatu day wanewu wanewu mooy yow yore nga sa xaalis kenn du la def loo xam ne bëggoo ko def yow yaay seet luy sa intérêt luy sa intérêt njaboot luy sa intérêt réew nga def ko doo ne rek madame Wade de moo ma financé woon kon de moom laay àndal man ñépp laay financé ñépp képp kuy jigéen nekk Dakar bëgg liggéey Ville de Dakar danaa accompagner kon nañ gën a góorgóorlu ndax nag ñun ñoo yore réew mi ñun ñoo ëpp ci population bi kon nañu lu ñun ñépp ñu def li ñu war a def te jàpp bu baax xam ne am nañ fu ñu mën a jàpp gis nga financement yi bu leen ko xeet mënuñu am financement yu toll nii état di joxe parce que ñun duñu état ñun collectivité territoriale rek la li ñu am mu tuuti mu tuuti te barkeel moo gën mu bare te barkeeloo kon ku ñu ci jox cent mille wala deux cent mille wala un wala deux millions bul ko xeet bul ne rek man financement bu ma déggee financement cinq millions wala dix millions la déedéet ndax nit jox nañ ko sax cinquante mille mu dem ba yore ay millions te loolu wax dëgg yàlla sama naataango maire yi du ko fàtte Bamba Fall ngi nii dafay def lu mel noonu Medina Cheikh Gueye yi nii dafay def lu mel noonu ci commune kon nañu góorgóorlu te xam ne liggéey rek moo am solo boo liggéeyee kenn du la yàpp boo liggéeyee da nga faj sa soxla kon waay waay waay ñun jigéen ñi nañu jàpp ci loolu jàngal ko suñu doom yi nag ndax xale dañ koy yar mu ànd ak yar ak teggin xale bu yaroo dara du ko jom kon nañu gën a góorgóorlu ci suñu njaboot yi ndax li xew ci dëkk bi kat gis ngeen ko nañu góorgóorlu yar suñu njaboot yi yar leen ci jàng yar leen ci liggéeyul ndax liggéey moo am solo nit ki bu bëggee jàmm ci réewam bëgg réewam développé day ànd ak yar ànd ak teggin nangoo liggéey kon nag wax dëgg yàlla lii ñu fi dajale tey yaakaar naa ne ñun ñépp suñ xol sedd na te nii la ñuy def continuer pour développer suñu réew foo dem nag ak CPM maa ngi sant personnel ba fa nekk yépp ndax wax dëgg yàlla li ñu leen santoon conseil municipal bi sant leen ko xar nañ ci seen tànk ba tey ñu am résultat yii ñu am comme que nag fii la formation bi pour 2021 doon yem bii di dernière cérémonie boo xam ne remise de diplôme la moo taxoon ñu ne nañ ko yemale ah def ko jox responsable yi diplôme yi ak financement yi ñu mën ko tasaare ci seeni gox yi may sant bu baax nag Bamba Fall tey defar nañu surprise bu neex ñëw na fekkee remise de diplôme bi merci monsieur le maire yaay premier adjoint nag boo nekkee premier adjoint bu may def dara war ngaa ñëw sama doom la sama xarit la jërëjëfati Bamba Fall ñu fekkee déwén yu bari ñaan yàlla may jàpp